Amar ngeen retrouver ci suñu plateforme digitale fas yéene ànd ak yéen dëgtal leen euh, les matchs de la Ligue des des Nations euh, comme ni ñu tàmm di ko defee euh, sa su ne su fekkee trêve am na donc nag match yi nga xamante ne moo war a am tey ci altine bi Géorgie dina football ak Albanie Azerbaïdjan dina football ak Slovaquie Italie war a jouer ak Israël Italie match bi mu joué woon ak Belgique ça s'est concédé par un match nul deux buts partout donc les Italiens ont distribué à 10 euh, pendant plus de 30 minutes par contre les Belges gis nañ ne que ñoom jotuñu imposé wu sur cette partie euh, Bosnie war a ak Hongrie euh, Bosnie bu Edin nekk jamono ji fële nga xamante ne moom mooy Fenerbahçe moom mooy joué ak Hongrie Hongrie tamit doon dalal Pays-Bas match boobu un but partout moom la jeexee Islande wala dalal Turquie si beneen match bi Estonie dina joué ak Suède Belgique wala dalal la France ce sera à 18 cinq mu nekk le choc de cette journée Ukraine wala jouer ak euh, Tchèque pays de Galles wala jouer ak euh, Monténégro Allemagne war a dalal tamit euh, Pays-Bas mu nekk match boo xamante ne euh, acteurs yi nekk ci monde football ñi ngi koy bàyyi xel concernant nag les stats dañ leen di dëgtal les meilleurs buteurs de cette Ligue des Nations ki nga xamante ne moom mooy Benjamin Sesko nekk fële sa Leipzig moom am na 4 buts Alexander Isaac qui est passé par la Real Sociedad nekk jamono ji Newcastle am na 3 buts Cristiano Ronaldo qui évolue aux côtés d'Al moom am na Strelec bu Slovaquie am na trois bi Denis Undav bi évolué fële nga xamante ne moom mooy euh, ca Bundesliga Stuttgart am na 3 buts Erling Haaland euh, l'attaquant euh, des Citizens tamit moom jot na dugal 3 buts donc lii moo nekkoon les top des joueurs yi nga xamante ne ñoom ñoo jëlagum pour le moment les meilleurs buteurs Victor Gyökeres tamit l'attaquant qui évolue au Sporting jot na dugal 3 bi pour les meilleurs passeurs dañu leen di dëgtal les six premiers passeurs Bakasetas mooy Grèce moom am na li nga xamante ne moom mooy euh, trois buts euh, Christophe euh, Bognater bu nekk fële ca Leipzig am na trois passes décisives Jamal Musiala qui évolue aux côtés du Bayern Leverkusen am na tamit trois buts Skov Olsen le Danois qui se retrouve avec deux passes décisives Alexander Sorloth bi nekkoon fële nga xamante ne moom mooy villa Villarreal ñëw Atlético Madrid am na deux passes Bruno Fernandes bu nekk Manchester United deux buts donc Florian Wirtz tamit mi ngi am passe euh, décisive euh, Marcel Sabitzer bu Dortmund euh, deux passes décisives li moo nekkoon les stats concernant les performances yi nga xamante ne joueurs yi ñu ngi koy amal sur la Ligue de Champions sur la Ligue des Nations ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax tamit ngeen woy di ñu topp suñu plateforme di partager di liker les liens yi nga xamante ne ñu ngi koy dugal si biir site jërë ngeen jëf.